وجهت وجهي لمن لي طيا وبدا إلى لوالدي وجهت وجهي لمن لي طيا القناة الإسلامية في خدمة الزهد السنغالية يلا المصطفى سلي الله وبي خليل المصطفى سندي الله وبخليلك دائما يا الله وبكلمك موسى سالم خدير وبسعد وعلي mu tedd mi moo ñu jox ndigalul liggéeyal ko murit bu ne yaa ngi xañtoo am ndigal te ndigal jafe fexe nañu nag ñun ba sëriñ bi teg nañu ci aw yoon jox nañu ndigal moom la ñuy matale si. waaye nag fi ne nii fondation ànd jëfal Serigne Saliou tey xam nañu fi ñu toll ci àdduna bi liggéeyal Serigne Saliou mooy lépp. moo tax fondation ànd jëfal Serigne Saliou ñëw fas yéenee ànd yow ci liggéey bi la Serigne Cheikh loolu de maa ngi leen di sant loolu la ñu soññ ci ay ah te xam nanga xam ni fii nga ko war a amee ndax fii la fii la lépp amee. rawkaay bi fii la woon mooy kër Serigne Touba. ba tax na moom maa ngi sant ci ñëw boobu ngeen ñëw ànd koog man yàlla na Serigne bi fay ci barkeb Serigne bi kon nag. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah euh, kon bu ko defee yéen ñi ñuy topp ba léegi ci seen site internet bi di Alfiqh euh, ñu nekk nii ba léegi ci biir rencontre bi nekk ci fi nga xamante ni mooy soxna yi bëgg a ak ñoom ay laaj ak i tontu. Euh, seq kenn ci soxna yi ndax mën nañoo xam tur bi. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziare mbokk taal bi yëpp di la ziare joriñ di la jox sa wàccuwaay waa euh, tur bi nag soxna Diarra Seck la soxna jaar Seck waaw. Euh, soxna Diarra Seck mu mel ne yow membre nga ci fondation ànd jëfal Serigne Saliou ñu gis ne fondation bi bu nga ñëwee da gis ne soxna yi ñoom ñëpp dañu toog toogin bu jekk ba noppi mu yiw lool. Euh, ndax mën nga ñu xamal dara ci taxawaayu soxna yi ci biir fondation bi. waaw jërëjëf jëriñ lay santaat bu baax ci question bi nga ñu pose de wax ni euh, soxna moom yiw maanaam mooy li nga xamante ne loolu lañ ko xamee surtout soxna si murit ñu dajaloo fii ni nag ci fondation ànd jëfa Serigne Saliou Mbacké euh, kon war nañoo doxee war nañoo doxee maanaam li nga xamante ne. loolu la ñuy sëñ bi jàngal muy yar ak teggin ak yiw sa lii nag euh, bettuma si ñoom maanaam lii ñu comme nii ñu dajaloo fii nii mel nii ñu mel nii bettuma si ñoom ndaxte soxna bu nekk noonu la war a doxee dafa war a euh, képp koo gis ku nekk rek danga war a gis ni surtu soxna si murit xam ni saalixaat ga mu ngi ci biir sa fii ñépp ay saalixaat ñoo su nekk euh, jërëjëf soxna jaara Euh, bu ko defee mu mel ne fondation bi tamit fondation la boo xamante ni mel na ni euh, mi ngi ci ay tànk di dox di dem euh, bi nga nekkee ci fondation bi ak léegi ban yëg-yëg nga ci am. waa fondation bi de bi nga xamante ni tàbbi si ba léegi dama cee yëg ak fierté ak dollik bëgg sëriñ bi ak tamit liggéey gi nga xamante ne maanaam namoon naa ko ci liggéeyal ko sëriñ Saliou Mbacké aw ma woon fu ma ko jaarale yàlla dogal ma bokk ci fondation ànd jëfa Serigne Saliou Mbacké yàlla dimbali ma ba instant bii nii maa ngi ci liggéey li nga xamante ne maanaam sama ñàkk foofu la toll bu ñu wootee liggéey dinañ ñëw su fekkente ne tamit adiye yi ñu ngi koy laajte tamit danañ ca joxe lépp loo xamante ne rek euh, suñu doolee mën na foofu c'est lépp c'est grâce à fondation Serigne Saliou Mbacké. Euh, jërëjëf ban kàddu soññee ngay jox sa mbokk soxna yi. waa soxna yi de dama leen di soññ rek comme ni ñuy waxee toujours ni saalixaat moom nekkul mbubb moo xamante ne maanaam dañ koy sol dafa nekk loo xamante ne boo si duggee da ngaa war a gëm am gëm-gëm ni man mi kat dama war a wuyoo saalixaat gi nga xamante ne moom laa doon muy nekk lu baax dama war a yiw liggéey bi nga xamante ne tamit moom lañ ma woo dama see war a liggéey ah, def si te tax ndaxte lépp loo xamante ne rek Euh, ñëw nga ci fondation bi nga ne dama war a liggéey sa liggéeyoo yaa ngi wóor yàlla yaa ngi wóor Serigne Saliou mi nga xamante ne maanaam moo tax ñu taxawal fondation bi. Hello waaw bu ko defee kon ba léegi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñu topp ci Euh, seen bi nga xamante ni mooy Alfiqh TV ba léegi ñu nekk fii ci Jannatul Mahwa ci rencontre bi nga xam ne moom la fondation ànd jëfal Serigne Saliou doon euh, di amal euh, ñu nekk ak ki nga xamante ni mooy jiite soxna yi fii ci biir fii ci biir Touba ginnaaw bu leen soxna may jiite ci au niveau national moom mu jiite leen fii ci biir Touba di soxna Loota soxna si ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax jëwriñ as di ziar mbokki taalibe yi yëpp di la jox seen wàccuwaay bu wér. Euh, mu mel ne gis nañ ne rencontre bi euh, moom macha allah wuy gi moom am na euh, ñu nemmeeku ci yar ak teegin en tant que koo xam ne yow yaay njiitu soxna yi lan moo waral loolu. waaw macha allah man naa ni ci liggéey bi la ak taxawaay bu rafet bi rek ku ci mel ni sunu jóoriñ bàcc bàjjen may ak yow mii di As Bamba ak ñi nga xamante ni ñoo yor waa kii bi organisateur bi. ñëpp macha allah liggéey bi aw na yoon tey rafet na moo tax tey ñu réussir nii di ñaan nag euh, mu gën a jëm kanam incha allah lépp. Euh, mu mel ne euh, yow moom jàpp na ne ci membre yi nga xamante ni xaw na noo yàgg ci biir daara ji nga bokk bi nga bokkee ci fondation And Jëfal Serigne Saliou ak léegi lan nga ciy yëg ak ban yokkute nga ci nga yëg ne fondation And Jëfal Serigne Saliou mi la koy defal. waa fondation bi nag yaakaar naa dara taxu ñoo jóg lu dul liggéey Serigne Saliou bañ ci duggee ba tey mbégte lañ ci am gisal guñ ci dara loo xamante ni metti nañu wala dara dara taxu ñoo jóg daal lu dul liggéey Serigne Saliou te ba tey ñu ngi ci yoon bi wàcceguñ ko euh, ban soññee ngay jox sa mbokk jigéen yi nga xamante ni euh, ginnaaw li nga leen di féete féete xale nga xam ne am na ñu la mag yu mel noonu waaye mel na ni ak déggoo am na ci ak déggal ban euh, message nga leen soññee ci gën a taxawu ci fondation bi. waa di leen ñaan rek sama mbokk soxna yi ñu gën a jàpp liggéey bi xamante ni liggéey Serigne Saliou bu mu àndut daray caaxaan ñu gën a jàpp fonk liggéey bi bu baax a baax incha allah maytu bu baax na mamut baax na jërëjëf dama Euh, kon defee ba léegi ñu ngi ci biir rencontre bi nga xamante ni moom lañuy amal fii ci janatul mawa ci kër sëriñ Saliou gi ci kër Baye Birane Gueye euh, ñu nekk kenn ci euh, soxna yi di jëwriñu soxna yi nga xam ne moom mooy njiitu soxna yi ci fondation bi eh, tudd soxna May Diagne soxna May ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay ziar As Bamba di jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu waa Daara ji ñëpp. Eh, mu mel ne tey jii eh, dañoo am ndaje mu mel ne ndajem rencontre ñu gis ne soxna yi moom macha allah wuy si nañ bu baax a baax ci ndaje mi lan mooy sababu ndaje bi fii tey. waaw as euh, sababu ndaje bi moom mooy mbokk taal bi yëpp daje ndax euh, boobu ba tey ñi ngi bëgg a def ay rencontre te jamono bi fu mu toll woon moo taxoon ñu ko def ba tey jii la ko sunu borom bi dogal ndax mooy rencontre bi ëpp doole si bi ñu defagum bi ñu amee fondation bi ak léegi. Euh, mel na it gis nañ ne soxna yi ñëw nañ wuyu si nañ woote bi waaye it maanaam gis nañ daal organisation bu am solo gis na nañ yar gi ak teggin gi gis nañ toogaay yi ni mu ni mu jekkee Euh, loolu lan moo ko waral. waaw sunu borom bi nag dafa dogal moom yàlla daf ñoo séddee ay mbokk taalibe yoo xamante ni am nañ yar am nañ teggin xam nañ tamit li leen tax a jóg moo tax ah, fu ñu mën a daje rek ak taalibe gu mat sëkk la wane ba lépp loo xamante ni bëgg nañ ko ci wàllu organisation rek daf ñuy daal di yomb. Euh, ndax mën nga ñëw dikkalaat ci solos euh, solos fondation ànd jëfal Serigne Saliou jàllaleel ñu tamit ci solos rencontre bi. solo si ànd fondation ànd jëfal Serigne Saliou nag mooy ànd jëf rek ñun ñëpp ñu ànd di jëfal Serigne Saliou buñ ko wootee nag mbokk taalibe yi kenn ku nekk am nga yéene jëfal Serigne Saliou ñu ànd si ñun ñëpp fas yéene nag doxal li nga xam ne mooy turu daara ji muy ànd jëfal Serigne Saliou daja bi tamit dafa nekk loo xamante ni lu mënta woon a ñàkk la ndax comme dañuy déggante ci whatsapp bi te ñu gisante gisante bi dafay am solo bu ñu ñëwee wàccee kaamil jàng ay xasida kenn ku nekk xam sa morom loolu dafa nekkoon loo xamante ni mënul ñàkk wax euh, ban kàddu soññee ngay jox mbokk soxna yi waaw xanaa ñu gën a góorgóorlu rek gën a jox gëdd daara ji kenn ku nekk xam li la tax a jóg nga nga nekk si lépp loo xamante ni luy doxal daara ji la nga nekk si jiital si yar ak teggin ak ak taalibe gu mat sëkk euh, bu ñu wootee jëf tamit kenn ku nekk loo si mën rek nga def ko si te xam ne loolu mooy jiite ji baax na jërëjëf القناة الإسلامية في خدمة الزهد السنغالية